xam nga dañuy wax ne booy xool jikko gaay bul daw ca jàkk ja bul daw ca aj ga mhm. bul daw ca koor ga mais dawal ca fa ñuy amee relation nit ña mhm. fu jëflante amee rek foo ngay xamee jikko yi mhm. te jëflante bi ci biir pénc mi la loolu nga xam ne tey dañu ne politique moo koy doxal te politique boobu doxal penc mi nag heure bu ñu bàyyee ñii ni ñu déggee àdduna doxale ko noonu àdduna tukki moo tax ëpp nañoo bàyyeek loolu seeni loxo mooy waral suñu réaction mooy waral suñu participation te ñu gëm ko ko mission bu noble moo nekkoon mission yonente yépp mhm. ñaari ci gën a fés mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak Moussa alayhi salaam. Mhm. ndax dañoo bokk lu bari moo tax ma cité leen. Mhm. système la jaamaarloo pour xeex ak système bi léegi la ñu ne ñu toog leen kenn du xeex ak nguur fan lañ ko bind te nguur di xeex. kon nguur kan lay xeexal ku lay xeex da koy xeex mais xeex yi nag naka la. kon jàmmarloo faaw mu am. Mm-hmm. parce que am na koo xam ne du nangu toog ci palaasam. te yàlla daa bëgg ku nekk jaar ci yoonam. Mm-hmm. moo tax ñu gis ne faaw ñu aar suñu réew moo tax ñuy def lii. Mm-hmm. alhamdulilah yàlla ñu ko yàlla fay. allahumma amin jërëjëf yal na yàlla nangu ñaan. Euh, ndax taxaay bu am solo la moom tamit saa su ne rek muy génne di jukki xalaatam ci li nga xam ne xëy na njëriñ dong lañ mën a xaar réew mi jëriñee ci jëlee ci. Euh, Oustaz euh, ñu doore ak li nga xam ne mooy actualité tey di ab xibaar moo xam ne xëy na génn nekk na sax lu nit ñi doon xaar ni xibaar bu war a génn ki tey muy verdict ci procès euh, Bah Diakhaté ak Imam ndaw gannaaw kàddu yu njëgiti woon ba mu waral procureur auto-saisiru yebal ay ndawam ñu daal di leen teg loxo ëttu wala sax àttekat bi daal leen daan lu toll ci ñetti weeri kaso yoo xam ne dañu koy tëdd waaye tamit lu toll ci cent mille francs di ñaar fukki junne ci weccatu Sénégal boo xam ne amande nañ leen ko gannaaw bu ñu leen teggee lu jëm ci offense au premier ministre muy une personne exerçant des prérogatives du président de la République waaye ñu daan leen rek ci diffusion de fausses nouvelles naka nga jëndee nga jotee verdict bi nu mel maanaam bi nga ko jotee dégg ko ni xibaar ban impression nga am ak lan moo nekkoon sa première réaction. waaw balaa may dem ci réaction yi. ak euh, li ma ci war a jàngat mooy kii di imam doon naa ko wax fii. Mhm. ak moroomam walla ñu tuddee leen sëriñ nañu moytu li ñu tuddee maletu nguur bés bu ne ma wax ko nañu moytu maletu nguur xam nga dafa am benn sëriñ bu baax day dénk sama xarit Chebatu Njaay mhm. mu ko nguur. kenn du ko jox ginnaaw te kenn du ko ñuuxu kenn du ko jox ginnaaw kenn du ko ñuuxu da ngay xam sa bopp rek toog bëri na tey sëriñ soo xam ne yàgg nañu tegaleen malet dañu woo seen waa kër eh, kaay leen ñii lii leen fi taxaw ñëw nañ ko gàdduwaat dem. kon contrairement ngay dem fa la xam ne malet dañ koy nëbb ba euh, rapport yi génn nga koy doo xam. loolu benn la ma dénk ko ku mel ni imam parce que euh, dafa doon wax waxu ku far amoon na ci droit mais waxu ku far ci sa dimension dafa am yoo xam ne warul génn ci sa làmmeñ loolu dama koy dénk mhm. ak mu dalagul ma dénk ko ñi nga xam ne ñoo doon nekk ci ginnaawam comme ay ñi koy jàppale ñun ñëpp su nekkee ci cadre imaama la ñuy ñëwee ci wetu waa ji yonent bi jàngaloon nañu naka lañu jàppalee ku tooñ xam nga bu tooñuloon kenn du ko denc su nekkee àtte ba aw na yoon te gis nañu aw na yoon léeg ñu denc la te ya yow la ñu tooñ nangu naa loolu. Mhm. mais nañu xool li mu def bopp ma ñëw ci kaam spécial. d'accord maanaam tey su ma nee ku tooñul kenn du la denc boo day nguur gu dëng comme bi fi jaadoon mën nañu la tooñ mën nañu la denc te tooñ loo. Mhm. man du ma généraliser. Mhm. su ma nee fu ñu denc da tooñ fekk di nga daye nguur gu dëng fii nag nañu xool dajewuñu nguur gu dëng maandu moo am ak ñoom affaire Sonko sax daa demul la ñu amal affaire. te yàpp naa ne est-ce que avocat Sonko taxawoon na fa boo amee tamit ngeen wax ma kon loolu la ñu amal affaire yoon gis ne li ñuy def lii mooy daan bi parce que loo gis rek penam am na ci yoon kon tooñ amu ci te tooñ baa nga jóge ca ca wax ja mu génne woon ca gémmiñam ñu teg ko loolu kon nag teg nañ ko ko mbokk yi nga xam ne ñoo ko doon gunge bu ñu génn mel ni waa ji dafa nekkoon ci yoonu yàlla dañu denc ko ca parce que imaam Ndaw suñ ko doon dégg rek ca la mu doon yem nu mu gën a yaatoo nag du ko limité. maanaam fa mu doon jaarale mbindeef yi ci waxtaan ba ñëpp naw ko ci. Mhm. su ko neexoon mu wax ci mbiru àdduna mais kàddu gu yi ñoo tax mu kenn musuloo imaam parce que dafa doon nettali siira. parce que parce que euh, te li ngay wax nii. li mu doon wax noonu. Euh, dafa nekk koo xam ne man personnellement xaw ko woon. Mhm. daanuma dégluy waxam mais euh, jot naa dégg ñuy wax doon déglu mu nekk nit koo xam ne xam-xamam xëy na ñu bëri nangoon nañ ko ko. parce que récemment rek samedi ndax dimanche bi amoon conférence xale yi nekk ci daara ja mhm. samedi bi ñuy defar baas bi yooyu fanaan foofee ngir sécurité ñi ñi ñuy teg alxuraan déglu dem ba ay 3 heures 4 heures du matin euh, sama rakk bi yoroon téléphone ni mu changé teg imam ak ah, waxtaan bi mu teg manquant yaa ngi bëgg a nelawloo bàyyi alxuraan mu dem après mu ne ma est-ce que xam nga kii si la ma expliqué ne imam la mais quand même wax ji set macha allah muy wax xam vraiment mu nekk nit koo xamante ni xëy na euh, nag lii peut-être ñu bari. mënuñ koo nangul njuumte gi parce que dégg naa ko ne ma ku mel ni Cheikh Bara Ndiaye nee na dégguma Cheikh Bara Ndiaye wax ko mais dafa am ku ma wax ne ma dégg na ko si Cheikh Bara Ndiaye su ma juumul ci télé bi mu ne bi mu waxee lii woon na ko téléphone ne ko juum nga génnal jéggalu ndax lii dinañ la teg loxo mu ne ko juumuma ndax li may wax fóor laa ko teg xaw ma donc on se la question lan moo ko taraw taxa jugee ci banc ba mu toogoo noonu bay yëgati kàddu ñu mel mais boo déggee quand même ci beneen facette nit koo xam ne la xam-xam bi macha allah. waaw parce que man daanaa ko déglu ah par nii pas toog nii. mais am na émission yoo xam ne boo xoolee. Mm-hmm. am na son mu daan boole la plupart ci émission yi ma def mu bàyyi ko ca suuf. si si nga xam ne. ku xam communication day attiré nit pour nga déglu ñun te xam nañu tuuti. Mhm, mhm, mhm. goo ko daan déglu ak dalam. di dem su ko neexoon mu participer maa ngi nii di participer fan laa mas a génnee lu ñaaw wax ko nit. déedéet mosul am. te mën naa mu daal ma su boobaa damay anima juum rek. mais surtout kat bu ngay génnee nag na toll tamit parce lu ñaaw mën naa am ñaari tolluwaay. lu ñaaw lu ñu la mën a comprendre ak loo xam ne day jéggi dayoo. parce que moom jàng na ne waroo jëlee information ci faaseq jàng na bu la faasix andilee benn xibaar fa tabayyanu moom laa la bëgg expliquer ci histoire wala boog ci benn plateau ma bëgg histoire même mhm. picc ba pas évadé ah. Mhm. génni woon rek ca nguuru Souleymane Ba. Mhm. te moo wax la ne ci Cheikh Tidiane yi laa dégg sax ma xam hudhud ci moom laa déggee ne Souleymane moo ko doonee ci Daawuda yàlla xam na ko ma seetlu ko fi tey. ma ko nay wax. ci waxtaanam laa xamee ne hudhud bi ñuy dégg nii. comme Daawuda yàlla da kaa mayoon. ay picc ñoo xam ne dañ doon ànd ak moom yu sabbih na wa tayra mm-hmm. quran dafa ne daawuda bu daan saabal yàlla montagne yaa jibaalu awwi maa wa tayra yàllaa da ndigal montagne yi ak picc yi ñuy saabal doo comprendre harmonie boobu quran dafa ne xamuloo montagne yi ak picc yi di saabal di ànd ak mm-hmm. daawuda kon picc yooyu am na ko ci turne hudhud hudhud boobu ci ci moom laa xamee ne Souleymane da ko bokk ca la mu doon ca baayam Daawuda mu nekk picc bu kemaane bi mu absenté ci nguur gi te tàggoowul Souleymane xam nga picc bi da leen daan wan palaasu ndox bu ñu bëggee soxla ndox jiney gas ñu gas avancé pouvoir bi loolu la woon picc bi nag dafa doon jouer rôle bu rëy ci nguuru Souleymane mu absenté sans mu demander absence. ok Souleymane jékki ne gisu ko wata faq da tayra mais xoolal Quran mu wax Souleymane da ko tëkku ne bu ñëwee dinaa ko demande explication wala boog. ma daal di absenté ci arme bi boo ñëwee ni lay pini mais dafa ñëw xuraan lu wax wa jituka min sabain bi nabain yaqin saba laa jógee fii ci mhm. Éthiopie la ci information bu wér péng laa la jox inni mhm. wajat ma mu commencé commentaire information bi kon naba yaqin mhm. da nga koy door a dégg doo ko joxe moo tax Souleymane doon gëstu ci picc bi na ko yóbbul ma lii su nekkee dëggal dinaa ko xam kon li ma bëgg a wax mooy. Mhm. dara googu ñu ko xamee woon su ko neexoon mu participer ci gisuñu réew mi parce que comme ni ma gis participer. mais bàyyi ko fa song benn nit boo xam ne ku yeewu woon doo ko song mooy nit ku ñëpp bëgg la ku ñëpp bëgg moytu koo ci xel rek laa de. d'accord waxuma la ci jàng ku ñëpp bëgg moytu koo laal. d'accord même saay-saay. Mhm. dañuy gis koo am ci saay-saay la nekk. Mhm. xale yi bëgg ko boo ko laalee ñu wax la. boo ko laalee moo tax foofu <laughs> naan ñu ko topp tamit bu mu génn mel ni dañ ko tooñ. Mhm. non non lenn li footum biir la. Mhm. am na lu ñu war a ci biti. d'accord ñun daal mu ngi ci liggéey ba xam fan lay mujjee. mais mel ni ci jiyaar la nekkoon ba ñu téye ko. Mhm. il faut pas ñu gëm loolu la. d'accord alors mais euh, verdict bi nga xam ne moom la ñu annoncé ndax mënees euh, nañu ko jàppee rupture. jëm ci justice jàpp ne justice mu ngi commencé quand même di teg tànkam ci yoon woo xam ne bu continuer Sénégal dinañ ci woy am confiance euh, confiance li tax ma def loolu mooy dana fee gisoon ki nga xam ne daanaka mënees nañoo wax ne kàddu yi mu teg ci moom moo tax ñu tegoon ko loxo tegoon leen loxo ñoom ñaar ñooñe muy Bah Diakhaté imam moom ba ñu ko fi toppee diffamation six mois de prison avec sursis lañu ko def ak deux cent million dommages et intérêts trois mois de prison ferme. waaye amende cent mille cent mille francs donc comparaison ba boo koy def naka nga koy jàngate taxawaay bi ci justice am ak dossier bi eh, niñ leen jugé en flagrant délit. jërëjëf laaj bu am solo la parce que fan yi da ngay dégg. bu ñenn ñi di kaas ñu jàpp ñenn ñi. wala bokk ñu jàppalee nga gis kuy génn naan am na ku ma gis sax gémmiñ gi day nàcc xam naa lu xew mu ne Sonko mooy jox mooy activité procureur man gémmiñam day nàcc kooku mën naa comprendre parce que boo tàmmoon di di tappale ci xaalis boo gisatu da ngay yi bunt yi lañ fermé dinañ ci ñëw d'accord mais du procureur la Ousmane Sonko di activé kon xanaa dañu bëggoon wàññi ne ñële ñoo doon activé procureur te noonu la amee woon parce que tey danañu naan la même procureur moo fi nekkaat non nañu dimbali jàpp yi njëkk ya ak yi bokkul bu ñu mélangé nit ñi yeewu nañ kenn mëntu leen a jàpp procureur yu njëkk ak yi bokkul fële da nga daan dul def dara man mii lan laa def misaal laa joxe sa bopp lan laa def exact am ku wax lu gën a garaaw sa wax ci époque boobu il paraît. tout à fait est que njëkkul laa wax sax. xam walla wala bu génn ñu doon nettali. kàddu yi ñu lay jàppee moom. xam nga bu la wax. da ngaa wax biir semaine bi mu wax ci. voilà te loolu boo ko xoolee kon bu ñu comparé jàpp yi. même semaine bi la ko am. bu ñu comparé jàpp yi boobu bu rombee. Mhm. mooy toog naa ak juge juge boo xam ne tey ku kawee ci mbir mi la xam nga lan la ma wax. Mhm. gis nga su neexoon Sonko wala Diomaye. Mhm. ñu def ñi comme nit ñu def mooy lan dóor leen mandat dépôt fàtte leen fa neuf mois dix mois mais pour changement bi nga xam ne moo war a am ci justice dafa feeñ ci àtte bi ñu teel leen àtte teg leen teg daan procureur moo waxoon di six mois mais gis nga wàcc nañu ba trois mois lan la waxoon Sonko fële diffamation la woon non. fa division xam nan. diffamation. Uh-huh. diffamation loolu la xam nga ndax ñoo bokk même bu ñu ñëw diffamation mooy andi nit ki waxal ko lu mu amul. mais xoolal li ñu amaanoon Sonko. 200 millions ak 6 mois yi ñu ko tëjoon. dañ naan moo ko yàqal sax nekk candidat. xoolal ñii fi ñu am 100000 ak 3 mois. kon nga xam ne. sauf que ñii prison ferme la Sonko sursis la amoon. Ah, voilà si mois yi ñii moom prison ferme la mais différence bi xëy na mu ngi demee ci ñi amende 100000 francs que le dommage intérêt 200 millions. mais Sonko du ñu koy dóor affaire bi moo nga kaso wala déet bi ñu ko defal procès Mambay bi. Euh, moo nga boobu ñu ko barricadé këram je pense. Ah. Uh-huh. kon kañ lañ ko jàpp Sonko Sonko dañ ko jàpp. Euh, non ñu ngi ko jàpp après après après Tabaski bi. après bi mu bi mu bi mu demee Ziguinchor mu ñib si Dakar donc bi mu ñib si si ko jàppee côté Koungheul ko. ok bu ñëwee ci ko barricadé après 55 jours ñu levé ko 2 heures ou ko jàpp. maintenant li ñu ko teg ak xam ne waxuma la dara ci gaawaay bi. Mhm. ci xam fan la jëm ak ñaata temps lay toog dóor ñu ko mandat dépôt fàtte ko fa loolu rek sa mandat dépôt moo feesal kaso yi Mhm. doo la mandat dépôt doo xam te am na cas yoo xam ne boo ko defee juge la naan non cas yi dafa spécial ba kenn du ko natt ci 6 mu jeex xam ñu bëri day naan bii la dóoree mandat dépôt boo nee 6 daa war a jeex da nga toog la non am na cas yoo xam ne da ciy génn bokk ci yooyu man yan cas. ci li ñu criminel la mën na dépasser mois. non non ku mel ni sax cas suñu cas yi. genre non moom yéen moom c'était c'était autre chose vraiment yéen moom. que di ñuy fonctionner nii te gis nga ni ñuy réforme yi ñuy def fan yi rek moo lay wan ne effectivement gars yi ci changer justice lañ jëm loolu nag dafa arrangé wu ñu bëri te dina leer ci génn Sonko yi nga xam ne gis nañ ko fan yi ak ñi muy wax ne dinañ ko doxal dinaa ci gën a leeral comme ça foofu ñu gis ne kon changement moo ngi am mais gars yi yàlla xam na ne gàcc gi ñuy am su booy réussir xajoo moom moo tax il faut ñu génn di wax nañ leen ko nangul rek il faut génn gémul guy nàcc di wax jàmm mais terew tamit ñu garder suñu révolution mhm. te tamit aar ko mhm. waaye mhm. alors euh, ci ci commentaire yi ñu ngi may fàttali euh, bokk na ca ki nga xam ne moo di Nazir Nazir Dieynaba Ndiaye euh, nee na Sonko était en prison lors de son jugement définitif ah moom tamit mu ngi ma koy fàttali parce que loolu moom mu ngi wax bi cour suprême di joxe son verdict boo fekk nañu teg ko loxo mais bi ñu koy àttee première instance ak appel bi ci cour d' appel boobu mu ngi nekk en liberté. ok justement foofu la loolu la loolu laa bëggoon wax quoi. alors euh, Oustaz bu ñu génnee ci ponk bu ñu mel wax ci mbirum général Kandé. Euh, mbirum général Kandé xëy na dañ daan wax mbiru armée moom daanaka wax ji duñ ci bari ba tax na ñoom ñu tuddee leen la grande muette bu ñuy voté budget ministère des forces armées ci assemblée nationale du am débat. même si que bu dee dan am ay orientation yoo xam ne xam nañ ne budget la fii la war du am débat moom exception la doon doon ci ministère yi fa daan jaar nay ñoo rek ñu voté ko budget parce que mbirum armée y la question sécurité ak yu nu mel ñu ne général Kandé dañ ko affecté attaché militaire ambassade bu Sénégal nekk ci Inde ci New Delhi coow li mu jur ndax boo ko mën a jàngatee dans la mesure mu fekkee le président moo war a nommé au poste civil et militaire moom moo ko fa nommé.